jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te buzz cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di liker wéy leen di commenter également te di partager vidéo yi c'est très important mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci seen émission découverte euh, donc émission découverte tey nag kim leen di indil euh, mi ngi wuyoo ci turu Tidiane Diallo Tidiane Diallo nag mi ngi football ci club boobu euh, di Strasbourg ci euh, petite catégorie donc euh, pour ñi ko xamul nak mi le 28 mai 2006 fofé ci France ci ville bu Orléans donc mom nak papa mon moy sénégalais yayam di algérienne mu juddoo fële ci France mom nak ab attaquant la bo xamante ailier gauche la est gauche bu mën limi def virevoltant boo xamante ne mën na percuter mën na dribler c'est un phénomène euh, ak ni ma ko gisee nii donc moom nag jamono yi comme ni ma leen ko waxee ñi ngi ko formé ci club boobu de Strasbourg Strasbourg nag depuis bi mu fa ñëwee football na ci U17 yi aujourd'hui nag mi ngi ci U19 yi lañ koy yéegal mu nekk un boy boo xamante ne tey jii boy la boo xam bu rigoureux boo xamante ne c'est un phénomène euh, euh, boo xamante ne il est audacieux audacieux donc attaquant bu la boo xamante ne donc c'est un leader boo xamante aujourd'hui tey jii moo doon capitaine euh, bu Strasbourg ci petite catégorie loolu nag di wane xanaa a boo xamante euh, espoir bi waa Strasbourg def ci bari na aujourd'hui euh, lu tax ñu andil leen ko mooy encore une fois alerte la fédération sénégalaise de football ñu andil ñu booy yi donc nga xamante ne mën nañoo ñëw ci suñ petite catégorie euh, déjà c'est un jeune joueur boo xamante il est excellent un milieu boo xamante ne tey jii mën nañoo wax que ne mën na football ci petite catégorie équipe nationale bu Sénégal à l'avenir également mën nañoo jariñ lu bari tey jii football foofu la toll football dafa toll foo xamante ne euh, booy boo gis. mu mën li def mën football donc da nga ko war a jëndi jëli indi ko ca sa sa équipe donc foofu la football toll tey jii eh, booy bi bu gënee toj tuuti wala sax ko dem waa Algérie rapproché nañ ko parce que euh, naar yi moom loolu lañ xam quoi seen booy yi nga xamante ne xam nañ ne am nañ ay origine euh, foofu noonu ay binn binationaux dañuy gaaw dem jëli leen jëlal exemple Maroc pile le 15. biñ na sonoo ren jii si mondial bi ñi won sen sen équipe nationale loolu di encore une fois tay ji euh, Sénégal dese na lu bari même si que sax ñi ngi ciy liggéey euh, cinq dernières années yi passé depuis bi Aliou Cissé ñëwee ci équipe nationale bu Sénégal mais je pense que ne des na parce que lu tax ma ne na euh, fédération bi tay war nañoo mën jàppale Aliou Cissé nan lañ koy jàppale ñu am ay détecteurs de talent ci bitim réew Italie France donc Espagne nga xamante réew yi yëpp. Sénégal am na fay jour am na fay bind son yoo xam ne ils sont talentueux donc ke fenn fu ne nga yóbbu fa kenn koo xamante ne dana gaaw a jege ñi nga xamante ne ñooy parents joueurs yi wax ak ñoom tey jii ñu mën gaaw ñëw ci équipe nationale bu Sénégal mais booy booy xaar ba ñu majeur di am ay vingt ans et tout ça di dem ba commencé di toj donc bu leen ay ay ay France reproché wala ay Italie dañuy dem parce que yow defoonoo li ci war et que aujourd'hui tey man dama nous, que ne nous, la toll il faut ñu ñu ñu takkuwaat dem andi suñu suñu suñu en tout cas nous naa naa def ci vidéo spéciale ba wax leen ban stratégie la fédération de pour convaincre les business. kon mbokk yi nous leen di commenter